asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. aawuzu bi kalimati llaahi taammaati min sharri maa xalaq aawuzu billaahi mina shaytaani rajiim wa a'uuzu minhu wa a'uuzu bika wa zurriyyatahaa min sharri rajim rabbi a'uuzu bika min hamazaati shayaatiin a'uuzu bika rabbi an yahduruun yaa Wahhaab yaa Razaaq yaa Maalik ibtahu hab lii warzuqnii min ladunka rahmatan liqi ajilan ajilan bil bishri ma amadin hatta uqima li diinillaahi arkana iskur joxee li tuuba waxmini waqini adawara watrib li sama kaana laka sama wal aradi wal hawaa bila musharikin li rut mashkuna ajib salib si min xaasan di muhammadin asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu ñu ngi siyaare ñëpp ñëpp bu nu waaye man di dégg rek ñu gital ci siyaare bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha xafisahullah wa nasara xam naa di waxtaane mbir mu am solo ci man mbir mu ma yitteel mooy werdu bi nga xam ne moo jóge ci Cheikh Ahmadul Xadim jóge ci yonent bi alayhi salaam mu jóge ca borom bi tabaaraka wa xam naa yitti woon lool werd wi de dem ba leer naññ ci murid yépp xam naa buñ bëggee waxtaanee Maaxuus alwidul Maaxuus moom ku xam ne ne duutul moom loolu moom ku dégg arab dara xam ne alwirdul maxus du du tur loolu it mat naa baxeel <clears throat> alxafiif ak kaamil ak mal tur moom ku ne xam na ne moom ku dégg arab xam ne sëñ bi tuddewut lii xafiif wala woyof kaamil bi mat akmal bi gën a mat loolu moom ku ne xam na ne sëñ bi tuddewu ko te ñu kenn kenn ci sëñ bi Sëñ Lamin Jóob andi wu ko ci ixnaa bi ne loolu moom dongay daara yi ñooy classé classé gis nañ daal ñett xam naa mag ñi ñoom it mel na ne xaw ma daal lu tax ndax xam naa ne commune mu daan jum xam na xisbu ak werd al werdu lu xotan nag moom lépp lu suñu wàcce Masalik lépp loo xam ne da nga koo jagleel waxtu nangam nangam ci jaamu yàlla loolu ñu tuddee werd naa fi la guddi sax da nga koy tuddee ñoom werd waaye nag ci tarixa yi yi nga xam ne ñooñu jiitu woon xaajal tiyaan saasali ñoom Euh, werd bi dañ koy taqale ak xisbu bi xisbu mooy ab dog boo xam ne da koy mottilee sa waxtu ni ko imam Xasali andi ca Ihya lu ñuy mottilee waxtu yi loolu mooy ay asaab nga nga dégg suñu Mulaay Jóob di wax naan Sëñ Tuubaa ci géej gi daana jëfandikoo xisbul baxar bu Cheikh Abdoul Hasan Satali wax na ne su su masaa di werdu wi werdu werdu yooyu kon kon kon kon xisbul baxar bala kon mën naam su ko werd xisbul baaxil xadim dañuy teew kuréel kuréel boobu lu yàlla mag ba kon xisbu la waaye werd la werd moom moom kon lépp looy def rek ci ak jaamu ci teru farata loolu la ñuy tuddee werd ci subenke yi waaye nag loolu mooy bu dee buñ si si si maanaam yi waaye bu dee dañ dañ koo jagleel nag dara tigi bu buñ ne al wirdu ci benn tariixa benn lay doon benn mooy lenn wenn yoon la ku ca jaar genn buum la ku ku ca jàpp loola mooy wirdu wax ahsaabiya lu ñu lu ñuy wéttalikoo la xisbul barra ku ne ci jéeri ji del jàng xisbul barra bu Cheikh Baha Diène wala Cheikh Tijaan wala Cheikh Abdou Hasan bu dee nag danga nekk ci géej ci ay tànk-tànk jëlal xisbul bahar xisbul bahar bi mooy boo nekkee ci ak dal bis bu baax rek nekkee ci ay jafe-jafe yooyu moom kon ay ay ay ay yëf la yoo xam ne dañ koy def demal ca misaal xisbu xajeeni xisbul ishraq xisbu duha xisbu duhri xisbul asri xisbu yu bëree bëri la asar yu bëri la léegi foofa fi jëm mooy rek sooju kokki bu nekkat xisbul bu al wirdul xaatim mooy mooy wird wi ak si gumati mi naa déet man kat sëñ xaatim moom si suñ Bamba joxoon na ma wird te xafif la mu ne ko waaw man mii 88 dem naa fa ak suuba yoor yoor la nii ñu fa mbekk Abdourahmane fa laa jaar ci jaar ci sama rek ñoo ànd dem ci sëñ Sëñ ñu man nuyu ko wax ko may kan moo jot njëkk si mën a wax wax ba mu xam ma mu ko dama am soxla ko dégg nga waaye dugg ci biir su mu ne mu toog jékki-jékki ne bërit mu dugg ca ci ca néeg jël nusxa ba nusxa ba demal ca wëris wax sooda na na nusxa bi bi ma sëñ Abdou Khadir joxoon yaakaar naa des na ko mën a sax andi eh, daal ma koy jox xam ne moom yónni wu ko gis nga yitti ji de bàyyi fi ñëpp daal dem ci biir indi ko ñëw taxaw bu indee toogul daal taxaw jox ma ko xam kon loolu kon wérd la li ma ko laaj mooy wérd maaxuus nit ni ma a ah, xanaa kon suñu bu xëy kon jox la du maxuus ah kay al wirdul maquusu min allahi bi waasitati la ma jox xisbu rafia xafiif la lañ koy tudde ba ma jox kaamil akamal lu ci mën di doon loola mi ngi jóge ci ci bi alayhi salaatu wasalaam kon sëñ Abdou Xaadir li ma joxoon kon wérdul ñu tudde xafiif la kon kon wérdu la Udmaawus laa ko woon jox na ma kon loola ñu ah, kon kon kon jox la wérd ma xus ne ah, kay ndax wérd li li ma jox wérd la luxatan ci làkku mag ñi te it ci ci suñ mbir jógee yonte bi yàlla waaye nag léegi bi ma jox nu tudd tigi moo ba ko gën a mag boo ko gën a gudd lay wax ñu ngi tudd ci 1922 mool nañ ko Égypte 22 bañ ko fa moolee ñu ngi ko tudde woon alxisbu rafia allazi min anniraani xirsun mania wali duxuli jannati adamu shafia sëñ sëñ Saliou bi mu joxe loolu lool lañ ci bind ca kaw moom it yor naa ko léegi xisbu kon xisbu xisbu la kon léegi alxisbu rabi arab yi leer nañ de léegi nag alwirdul xaatim sëñ bi bind ne haada xool wirdul xaatim lii mooy mbindum la haada xool wirdul xaatim almaxuusu min allaahi bi rasulil xaatim moom laa bind moom wird la sëñ bi sëñ bi lu bind arab la moo bind wird fii di bind fële alxisb xam naa dana am ku jaaxle ne waaw sëñ Malam Diop di ca ba muy tontu sëñ Mor Jooja Fallum Cheikh Ibra Cheikh Ibra mu ne li yaalam kullu man waqafa ala hada al xart an al axal xabib Mor Jooja Fall talaba minni an uwaddiha lahu shay'an min amri al wird wa zaylihi al wird waaw lu tax sëñ ma Lamine Diop ne alwirdul xaatim bi tudde ko zeyl dégg nga fii mu ne min amril wirdil maxuus wa zeylihi alwirdul xaatim sëñ ma Lamine jóob lu tax mu ne alwirdul xaatim mbicc la sëñ ma Lamine Diop ci ixnaa bu bu bu ñu ma saa di wax ci Tuubaa danaan sëñ bi ne bind na nangam nangam waaye waaye fii moom tuxalewul ci sëñ bi ne sëñ bi moo tuddee al wirdul xaatim azeylu dégg nga bi mu koy wax ne ko nee na sëñ Ibrahima Diop ci tontul sëñ sëñ Modou Diop Fall ko waxu ay dan bi nee ko ñaar la ñaari version la ñaari copie la ñaari copie boobu version copie xafiif sëñ sëñ Ibrahima Diop andi wuñu foofu ne bii mu ngi tudd xafiif andi lu ñu fu mu ne sëñ bi nee bii mooy kaamil mu ne kuy jëfandikoo koo xam ne da jëfandikoo werdul bi te muy te muy nee na eh, mbicc mi azeylu nee na da koy jàng yaqra'uhu ba'da duhri wal maghrib wal isha bu dee in kaana yastahmil ma'kuus bu dee ma ngay jëfandikoo xafif wala kaamil nag la wa illa bu dee jëfandikoo xafif wala kaamil moom léegi da koy ngoon na mu remplacé ko kon xawma man am kan bi la ba kaamil bi la ci waaw way taraqa ba mu gën ba ruuxaneem dëgër mu yéeg nee na wal jamee nag yudlaxu ali is almaxuus nee na yëpp nag ñu ngi koy wooy wooyee almaxuus dama eh, gis ne kon sëñ Mad Lamin Jóob moom moo wax loolu waaye waxul ne sëñ bi ne waaye nag lu am solo la sëñ Mad Lamin Jóob moomut maa ko xam nga moomu wér de moom dañuy day toxalee ci sëñ bi su su su ne sëñ bi ne askay bu nee maane askay loolu lépp baax na léegi ni ma leeraloon sa sànq werd wi nga xam ne mooy moo ñuy jokkale ak bi moom kon mooy alwidul xaatim kon alwidul xaatim boobu mooy wedd bi tegi man loolu laa jël jombul keneen mën naa wax ne dée man maa ngi jël nekkat euh, werdu xaatim bi sax moom du werd am na ku mën a wax loolu daal di ne kat boo ko laajoon ci tislaaya mu ne si milay bi kat mu ngi ko tuddee zeylu te nee na ku ko jëfandikoo da ko jëfandikoo rek ngir bëgg a dëgër boo dëgër doo ba dëgër dem ca ci xam naa hmm? xam naa euh, man mi jëfandikoo xaatim bi ma te naa gis bi maa ngi laaj nag gaa yi jëfandikoo yi ci des ñoom ndax gis nañ jeexitam bi bu de bu dee man xaatim bi dañu mën nañ cee faj man cee def tàngam man cee kii man cee ñaan soxlo lu ne de waaw moom ko ma koy jox rek ñu ngi ko ciy def benn xale nga may nettali nee ma xuma daane ci ab classe xanaa may am soxla la jékki benn xale daal di xuma eh, kii ne mën a tudd a gis jékki-jékki faru mën a mën a tudd a wax ñu ma daal di jël eh, ndox daal di werd maaxuus nee nee na sax ndax jagoom ji juróom fukki yoon yi ñetti yoon la la la ko def daal di wéy ëpp ko ci ndox mi jox ko mu naan sëlmu ci ma tàllal sama sama loxo mu ne mi may gis daal di mën a wax Oustaz Cheikh Fall mu diirul Azhar bi nekk nekk njaaree moom it euh, wax na ko ne ma xaw ma daa am xaw ma doon xaw ma yoo xam ne xaw ma da doon jàmbat yu xel yooyu yu yu baaxut yooyu nee na ma ne ko ah man de xaw waaye daal di jël maaxus bi wedd ko ëpp ko ci ndox jox ko mu naan mu baat léegi nag gaa yi jëfandikoo yi ci des ñoom. ala shakli wérdin jàpp jàppee ko werd bi ma dama da xaw xam ñoom mën naa am ñoom dara gis nañ dara xam nga moom danaa ngi ci waaye borom da koo leeral dane alxisbu rafiq la allazi min anniyaani xisu mani yooyu de li may jëriñ mooy dalay aar ci sawar bay duxul janati ensom chafian lu gaaw la ci mën laa dugal àjjana moom moom kon moom leer na fii nag moom du loolu wirdu xaatim moom moom du loolu wirdu xaatim mooy al wirdul xaatim al maxus bi lay suqa xaatim mooy wirde bi nga xam ne mooy buum gi lay lëkkale ak sëñ Tuubaa bu la xasee lëkkaleeg moom loo bëggati mën ko ca am kon léegi du du seen soxla bu dee bu dee xafi yooyu ñoom seen soxla la kaaraange la ci sawara nangam nangam mën naa dugal nit àjjana waaye su fekkee moom daa daa bëgg leneen lu ëpp àjjana loolu nag moom Hizbut Tarqiyyah ñoom moom mënu la ko jox moom ndax ndax annoncé ko ba noppi wax nañ la li man li muy jëriñoo wax nañ la ko kon moom man dama kon jooyal ci nekkat kaamil bi xafi bi donte ne tur yooyu Sëñ Tuubaa waxu ko mën naa am Sëñ Malamine Diop moom bind na ko noonu mën naa moo ko moo ko wax wala kenn wax ko dongay daal daal ñoo ko wax yooyu ay ahsaab la nit mën na koo jëfandikoo ngir barkeeloo ko waaw ni Sëñ Tuubaa doon jëfe sibul bax rek bar rek yooyu yooyu sax waaye werd wi misaal tey soo demoon ca tiyaan nga ne leen waaw yéen wala xaajir yooyu lu seen werd xaajir bi ngay laaj ko ne ko lu seen werd mu indi la werdam nga ne ko déet man xisbul bax rek de man laa yor mooy la kooku du werd xisb la al wirdu laasim kasa wa kasa kon man dama jàpp ne al wirdu laasim werd bi nga xam ne moom la Sëñ Tuubaa obligé obligation wala ci bépp murit mu am ko mooy al wirdul xaatim soo nappee nag yow damay daal di waxe kon ni ko sëñ Lamin Jóob ci waxe woon kon nee na moom wérdul xaatim ku jëfandikoo maaxuus mën na ko jëfandikoo suba ngoon nanga na am ma ne waaw man léegi ku jëfandikoo xaatim bi mën nga ko mën nga def ko suba timis bu la neexee nag kon yow bu dee da mag moo xam ne amatoo am nga jot gu yaatu ngay barkeeloo xafiif bi wala kaamil bi suba ngoon waaye nag ne wérdi wi mooy alwirdul xaatim ñaari yee ay ahsaab la yuy barkeeloo man man moom man man foofu lay wax kon léegi day mel ne kon am na kon ñaari école kon école boo xam ne daa juddoo ci waxe Sëñ Lamin Jóob ji jàpp xaatim ab mbicc la waaye du werd te Sëñ Lamin Jóob ci moon ci mbirum loo xam day moom tudd na ne tudd na ne alwirdul xaatim wa zeylihi alwirdil xaatim damatul xam lu tax moom mu wax zeylu kooku moom wax dëgg yàlla gisaguma ci ku ma ci tontu lu tax mu tudde ko mbicc te day mel ne sax kat sëñ bi Lamin tuddee woon alxafifa xaatim mu tuddee woon ko mbicc ndax booba amul turu alwird amu ca moo yaakaar naa moo gën a kii ci man doon tuddee bi Sëñ Tuubaa yaxal ne bii alwirdul xaatim la alwird bar ñëw ca yow nga ne yow nga ne ko waaye yow mbicc nga dañ koy yokki sër bi su dee matut zeyl mbicc sër bu matut ñoo yokk ko loolu la ñuy wax mbicc wala sër bi lañ ca yokk di di ko taaral loolu la wax mbicc léegi ko kon moom al wirdul xaatim kon moom dëgg-dëgg mooy wird wi waaye nag la sëñ Saaliw waxoon xadda sa law sirra sirra ne waxtu yi de bari na tusbaar timis moomu kon léegi sëñ Ibrahima kon léegi kon léegi ma nga lay junj ne sëñ Ibrahima Diop kat kon ak keneen ak mën naa wax nañ ne kat na waxtu wax waxtu yu bari waaye da waxtu wi nga xam ne moo gën a kii Mamour xam dina naa ma xanaa kon mbëdër bi dafa ëppee am na ñu wax naan bii moom daal kon dañ koy dëgërloo am na am na ko fi ñëw na di wax ne ma kat sëñ booba ne nee na xeetim bi sax de moo gën a diis xam naa mën naa am daa ñoo xam ne dañoo bëgg nit ñi mën naa am daal euh, ba xaatim bi moo tax dañ naan du dara ba jàgg ñu ne dafa diis ndax ki way jëfandikoo moom dana xam li nga ko wax lu mu doon beneen tomb bu am solo awraad yépp xafiif bi ak xaatim bi kenn am na ci ay version ba démb rek am na am na am na ku ma woo Baye Fall Europe la nekk ne kat man kat soxnaam la woon ma jox ko bi xaatim ma jox naa ko ko mu ne ma démb bii mu ne ma nag léegi daa bëgg ma jox ko daal xaatim ndax ma euh, bi moom da koo yor waaye da si Sëriñ Tuubaa ñu yoruñ ko ci te xaatim bi moom mbirum si Sëriñ Tuubaa yor nañ ko ci daa bëgg ma jox ko ko lépp am solo la wérdul xaatim bi képp moom lañ ci am lu lu wër cëng ne mbind mi mbindum sëñ Tuubaa lii moo ko bind ci loxo cosaan la ma ma nga woon ca loxo sëñ Moussa Bachir ca maktabaam xam naa mel ne kon sëñ Moussa Nawel kon xam naa kon ku am ak moom ak jaxasoo mën naa mu yorko léegi xafi bi xaatim bi gis naa ci Pamboso bi ci Facebook yi génne woon nañ ci ñaari daaw la xanaa ñaari version bii ñu ne sëñ Moulay moo ko bind. bii ñu ne suñu sëñ Mulaay ko binduloo doomam diw ñaari version yi daal di wute kon doo xam ba xam kon kon ñoom eh, sëñ Mulaay min Jóob fe irna allahu la ilaha illa illahul xayyul mu ne mu ne moom daal wóoru ko ba xam ndax ayatu kursi bi daa mat allahu la ilaha illahul xayyul qayyum des na ko wér si si bilam Jóob xam na loolu moom xam na ne ne des na wérd loolu loolu loolu ab wérd la ndax alxayul qayum bu dee ca tiyaari ñoom kooku mooy ismu lay ansam allahu laa ilaha illa huwa alxayul kooku moom kooku moom aw turu foor la mu ne moom ndax du ne ay aytu ko si la sëñ bi doon junj waaw booba ma ne ay waay sëñ Lam Diop booba sëñ Bakki bu sax xanaa mi ngi fi mën naa am xanaa sama dem ak a njaareem mu ci boobu ay waay loo tax ñoom mag ñi boobu ñu mun ñoo dajaloo ñoom yónnee ku ne ko ah man kat damaa xool ba xam la lay lay xool ji ayatu kursi yi la wala fii la sëñ bi am ah su ma leen jóg bu defoon loolu ko kon dana danañu noppal léegi kon noonu ginnaaw noonu su ma leen jóg moom léegi wóoru ko wedd wi nusxa bi mu la boobu ndax jot na wala jotut mat na wala matut léegi am na ci ay mbindi loxo ñaan naan mbindum Sëñ Tuubaa waaye dafa am doomi Sëñ Musaa xasaayit yoo xam ne day roy sëñ sëñ sëñ bi dafay roy roy ba mel ne ba mel ne boo xamee wut da nga naan mooma xam ne am na ñu ñu wax ne ay gone yoo xam ne dañuy roy mbindum Sëñ Tuubaa bi noonu amuñu original xafi bi bi kaamil bi kenn amuñ ci original mbirum loxo Sëriñ Tuubaa amuñu ko te tey tey ñi ñu koy jëlee de day wute am naa ci beneen werd woo xam ne du xafiif du kaamil du xaatim sa sëñ ma madu marem sëñ kokki madu marem la ko sëñ Bachir joxoon ab sëtam moom ko andil ne daal da ko ah xam ma ko ma ne ko ma ne ko yow ginnaaw yow sa bàyyi la ko jox sëñ kooku ma di bëri moo ko jox sëñ Bachir kon baax na moom sëñ Bachir sax da caa da caa tamponné da caa signé. indil na ma nusxa asliya ba poto naa ko poto naa ko yaakaar naa li nga yoroon sa sa sa eh, nañ indiwaat wëri si wenn yu ba xam bi nga jëkkoon naa indi mën naa am da da da dañ ko ci ca gis. léegi ma ne ko man ah léegi léegi yow ne ci rek kon yow waaye man dama jàpp ne booba booba ba tey xisbu la am na nag euh, ay gars yi wax naan waaw kii kii bi euh, euh, xaatim bi du wér lu ko waral amul salaatu annabi ñoom nee ñu amul nangam nangam ñoom daal dañ ne ñoom werd dafa am lu composé wu xam nga loolu dana danaa tooñ Issa gi ak imaam ne ne ko yéen Ahmadou Mbacke ñoom Mamadou Hamdi ñoom yéen ay jànkan ngeen ay musaqafin ngeen maanaam léegi sëñ moom danaa la lii laa jëlee ci yonent bi incha allah mu ko ci yàlla suñu laaj ne ko yow bi ma jox amul nangam te kat nangam faaw mu am nangam loolu yaakaar naa moom soo man ab suufenke laa doon. man xawma ma kon nee naa suñ tubaab bu ne woon nu ko waxati góor a njaay mooy maaxuus bi ma jëlee ci yonent bi yàlla kon man may may wedd man góor a njaay talsam la talsam la talsam mooy code la dañ ko côté kon kon wér di bii dong lañu am lu ci wér cëng ci ne mbirum Sëñ la xafi bi mbind yañ ci gis yëpp am na ñu cee laam-laame naan diw ko bind diw ko bind diw waaye bii képp nuñ lañ am ci ne sëñ bi moo ko bind ah waaw waaw léegi ginnaaw bii moom bii moom mbindum waaye wér na ne ma nga ca barab sàngam wér na moom ya ca des wóoruñu am nay am nay waroo xanaa léegi la la jóge ci salaay salaam xanaa xanaa léegi du ñëw ba ba ba ci yàgg euh, saa si ma ne ko déet ba ma joxoon kat léegi yokku ci nangam wàññi ci nangam daa mel ne xanaa wird moom xanaa dawul doxee noonu jàpp naa ko moom bu dee nag leneen nga ci de mën naa am maanaam sax min min ay aw nun koo mën naa nekk waaye nag bu dee ci wird moom xam day ñëw na benn yoon kooku moom na alxuraan bi ñu doon soppi ko soppiwaat alxuraan dikku dikkuwut benn yoon kon daal bii moom wóor na cëng ko waxal yàlla xam ni bii képp kot rek dong nu wóor cëng ne mi lim loo xam ne si sinduwaay maa ngi bii bii moom it amut wuute ah, mu ne am na ko am ko de fi bii nii mi lim loxo maa ngi nii sëñ Abdourahmaanum dara mooti bind na ko laxa jàkkum ji juróom-benn fukki yoon ji sëñ Abdourahmaan jiital ci aouzu billaahi mina shaytaani rajiim ma yónni ci ku ñoo Mourtala Sylla ne ne ko waxal ma ko ne ne ko mbindum loxoom si Sëriñ Tuubaa mi loolu amu ci Moustapha Dieng moom mu ci kër sëñ kër sëñ Basiiru Moustapha Dieng mi mool bi mu ci mool moom da caa yokk wàññi ca ci moom daal tum na waji kaar kaar gis naa ko wax ko wan ko ne ko yow de sa mool bii manqué na yokk nga ci mu ne ma su koy defaraat su ma koy kiyaat danaa ko defaraat si àll ji suñu àlla ji mbàkkee am na ko fi indi boo xam ne moom it laxa jaakum jë ko caa yokk axonsu billahi mina seytaan te moom na mbindum loxoom borom a ngi nii moom amu ca xam nga nag kon ku mel ne Cheikh Mouhamadul Muntaxa xafisahullah wa nasara waaw sëñ bi nag buñ jëloon nag yëf yi nag dëgg dëgg dal yitte sëñ Muntaxa woo rakkam yi nangamam yi doomamam yi ku ci yor mbindum Sëñ Tuubaa ñu soytu ko ba xam ne dëgg-dëgg mbindum Sëñ Tuubaa la ñu daal di koy def ko fenn archivé ko fenn ci maktabam bi maktaba si xadim ba ci nangam nangam eh, ko ñëpp am ko ñu xam ni araf yi sëñ Basiru nee na eh, ca man son ba eh, werd secret bi dana nekk sax ca benn baat waaw ñu xam ne kon kat suñ tuwaa moom li ko yonte bi jox yàlla jox ko lii dong la rek kott dong sëñ bi loolu nun yitte jooju Cheikh Amadou mun mu taxaa jàpp naa ne su su woon wuti ab commission woo woo rakkam yooyu doomam yi ne ko dama bëggoon ku may dimbale ku yor mbindum loxoom sëñ Tuuba ci werdi yi andil ma ko jàpp naa dañ ko andi du ko jël da koy scanner képp foto ko rek lay def wala boog kat ñu ne kat léegi kat mu mi tey musée Sëñ Xaadim ba ñu def ne kat waa kat si Abdou Khadre si laat sëñ sëñ sëñ Saliou am nañ fi ay janaax janaax bu nekk la moom ñu baal la ko ba nga xam ne yow yaa ko moom waaye dañ la koy dencal yaakaar naa kon yaakaar naa kon yaakaar naa loolu bu amoon dana baax lool kon su su su boobaa kon coow werante du am ba ca topp mooy ñu waxtaan tiggi nag tiggi ba xam ne xes bu ak wér du xafiif kaamil yooyu ay ay ahsaab la du wird wala du du al wirdu laazim fil xarakal muridiya wird bi nga xam ne képp ku ko jël doo ngab sëñ Bàmba nga tigi donte ne liggéeyaloo ko mooy al wirdul xaatim kañ la kañ la ñëw am nañu ne waaw sëñ bi kat moom kon joxe woon na wird wa nee na ci gànnaar ni kat la la ko suñu boom jox wird wa waaw al wird bil maanal am bil mafhumil am secret bii salaay salaam moom ma ko jox ne yàlla ko jox kooku wérd la bil mafhumil am ama bil mafhumil xaas nag abil axas al xaatim bii njaarim la maanaam jëm sa la nga xam ne mooy nihayatul mata sëñ bi mat na sëkk lam ko sun borom jox nga ne moom bi matee sëkk sëkk lam doon mel na ne mënatul a jiggi ab jéego booba lañ ko jox wirdul xaatim Ah, sëñ bi booba bi matee sëkk lañ ko jox loolu de xanaa war naa junj dara moom alwirdul xaatim isaa gi imaam ma xam ko wax ne ko xaatim almaxsumi laahi bisul xaatim waaw moom ndax junj ne la wérdi wii mooy tëj wérdi yi waaye déet loolu loolu moom moom mëtta wax moom ah, ndax diggawu ci moom ne kat lu ñuy mottalee rek moo tax mu tudd ko azzayl mën naa waaye man sama dégg mooy a xaatim wedd wuy tëj maanaam foo koy déggee almaxus xaatim sallallahu alayhi wasallam yi xam ne moo tëj bunti yonti yi naka noonu wedd wii wedd du amati ndax kay dana amati bir ma fuy la amati waaye bir ma axas werdi tigi tigi sëñ bi ma dina dafa am ku fa ñëw a góor sama bàyyi nee na ak góor ku ñëw ne ko man de dem naa ba àgg fa ñu tëkk jéng ya ñu sos jeex na sof moo fi des sof kon day mel ne kon werd wii tëj na bunt yi nga xam ne moom kenn mënatul de société werd xanaa da koy sof kooku man loolu ban sama école man man sama école ku ku ku ma wax doy askay comme doyut askay wird xaatim bi daal mooy wird wi dëgg yaa ca des ay ahsaab la ku la ko jox sëñ Abdou Khadir jox na ma ko ku la ko jox kooka joxule wérdi wi bil maanaal axas waaye dala ko jox bil maanaal aam kon Cheikh Ahmadou Mountakha yi kon maa ngi koy delloo ñaanaat bu ñu mënoon a liggéenti waatal wérdi wi ba nga xamante ne danañu wóor cëng ne wérdi wii mooy wérdi wa Sëñ Tuubaa jule woon ci salaay salama maanaam xarfan bi xarfin yokkuwul wàññiwul sëñ Bachirou nee na bu ci benn baat wàññi ko sax mën naam am secret ba fa sëñ bi kon ruugaa ko ko ruugi ruugu murit gi ruugoogu xale yi nga xam ne toll jox ko ñoom ñu ñu di faj soxlaag di ci faj benn di benn xale Saliou Sylla mbokkam mbokkam mu jigéen mu wéré di bañ dañ koy opéré mu mu mu ñaanal ko ci maxuus bi mu dem ñu ne ko gisuñu dara waaye sëñ bi sëñ Touba yàlla mu tedd ma. moom ci boppam moo moo moo seet ci ay ci bagage yi yiwam tànn ba ko gënal li tax moo ko gënal moo jox ko kii ko gënal salaay salaam salaay salaam ma jox ko kii ko gënal xanaa ah, suñu doyen xanaa moo ko gënal mu jox ko ko waaye si biir silsila boobu xanaa kon xanaa xanaa dëgër këng la xanaa bu dee xisb bu dee werd la lu ci doon dëgër na waaye werd wi nag moom mu ne lii mooy werd wi foofu. dana danaa fi ñambas dara lii mooy lii mooy mbindum sëñ Mbàkke Buso li li daan xaw ma salaasu salaasu war a xaat ma salaasu war a xaat laa te salaasu war xam nga loolu moom kenn xamul noonu ndekete ndekete ab bataaxel la tontu bataaxel la sëñ Mbàkke Buso day tontu kenn di ko wax gone gi nu ñuy tëkkëb seeg bu bu ndey ji ëmbee luñ koy defal ak bu juddoo nangam yooya dañ ko bind ci wolof nee nañ man sëñ Modou Mamoune ñu ngi laa digg am na ñu ne moo ko fiir ci wolof waaye ndey ja ndey ja nekkul mi ngi nii ndey jaa ngi nii waaw sëñ bi waaye gédé wax naa leen ko am na am na benn mbusoobe ba di ko nettali benn mbusoobe daal sëgg mën morom ja ne day day wax rek waaw am naa jàmbaar la sëñ Mbàkke fii dafay bind moom signé wax mooy kan bindam a ngi mbindu loxoom wax ne wax ne mbakki bu soo nangam nangam diw moo ko bind fii moom ko kon lii moom lii mooy maxtuut asli bi waa Gede ñoom lu tax waa Gede ñoom waruñoo am yittey ñëw foto ko yóbbu am na ko naa ma eh, eh, Fallou Bousso Assane ne ma ne a jox ma waaye ndaw aw may jóg di leen ko andil waaw sëñ bi xool de te léegi yow euh, sara su baraxaat xaw ma xaw ma lu lu lu firi man xaw ko te te ndey jaa ngi nii léegi lu lu tax mënu ñoomul arab bi wala ñoom ñoom ñi ko moom wala ñi ko seen ba maam def nangam ñoo am ca photocopie denc ko ba le mbind mee bu soppi ko ñu xam ne seen maam bu waxutoon loola sëñ bi vérification méthodique dafa jot. waaye lu lu dañuy rek di bind di teg rek foofu foofu dara fi ñambasa dara rek tëje ko mooy xam naa Cheikh Madul Muntaxa xafisalahu nasara këru xasida yi yooyu yiñ ki xam naa bu wutoon ay ay expert ci ci li ñu tuddee al mu taxqiq taxqiqu nusuus ay ay experts farale leen ko. am na bu noppee nag dañu am sax ay ay gars yoo xam ne ñoo leen di ñooy doon seen i ngóor daal ñoo xam ne bu ñu yónni di leen yónni bu dégg su dara gisu leen ko waaye nag eh, ñi koy ŋànk doon ay expert xam nga fi ñu toll sëñ bi eh, xaside yi ñu mool mool rek nii mool mool nii rek werde wi noonu la mool maanaam xamoo bu ci wér bu ci wérut sëñ bi loolu jamono war na ko daal jéggi daal xam naa daal Cheikh Mountakha maanaam bu ñu mënoon a def daal commission scientifique boo xam ne day doon bu bu foor ay jàngkat tigi na ca kon day danañu dimbale dimbale wane yi dikkal ak balaa yéexi jaaxa ya bari kon kon wér kon mi ko kon ci ci ci ci tënk al xaatim hada bii la ca moom mu ne ak xis ko ko kon moom mooy mooy weddi tegi am leneen nag ku mën a weddi sa sa sama wax ji kon kon moom day gën ko mën a weddi wax ji weddi ko dana baax lool ku ko mënta weddi na it ñu xam ne kon daal bii kon moom mooy weddi ya ca nag yu ñu barki sëñ bi laaj ndax ma gis naa boole ñett yi bu di dikkee ci ci man ne ma ndax man damaa boole ñett yi ma ne ko loo ci jublu warsh ak xabs ak qaaluun lu mu jeeñ moom waaw xanaa du xanaa du wax dong xam nga bu la yëf yi xaatim bi gën a gàtt noppale lool juróomi du la ko jël te loo bëgg mën ko ca def yaakaar naa doo sonn ci yanu luur jeex soo toogee nag ba am jot nag fii nag mën ngaa jël xafiif barkeelu kaamil barkeelu waaye dëgg dëgg werdi mooy alwerdul xaatim sëñ Saaliwu ji am na ci lu ci mat a leeral sëñ Saaliwu moom moom moo ko jox saa ko wax Issa Guèye dama ko laaj werdi wi naa ko digal naa ko digal naa ko digal naa ko lu ci nekk secret la yàlla ko moom defal amin mu ne waxtu yi de bari na waaye suba mu si moomu te man ma gis ne kon ginnaaw xaatim bi moom tisbaar la ak timis kon moom la riwaaye bi laa bëgg mu leer sëñ Saliou ay ni ma sëñ sëñ sëñ Abdou Khadre joxe joxu joxuma këyit moom moom daa wax sëñ Mourtala moom it daa wax rek jox ma noonu léegi nag kon bu dee wedd bi képp nga soxla yow weddu xaatim bi wedd la soo amee jot nag mën ngaa jël kaamil xafiif waaye dégg naa am ku wax ne am na kilifa goo xam ne boole woon na wérde yi bismillah boole le woon na wérde yi moo indil ko jafe jafe benn benn waay woo na ma ne ma rakkam day daa boole awraat yi xel ma nag fi ñu toll kat mel na ne dem na mu ne ko ah, mu ne ma léegi day jël alboo moom soxnaam géddu ci bitti di xottu xam ko kooku ngi mu ne ma léegi dafa ba indi ma léegi daal ne la ko ma jox ko waaye dina ma dara lu wëkkatu dërëmu wëkku ma waaw xam nga kooku sëñ mu mu boole ba am ci tàngoor woo xam ne photo yi sax bëgg koo xool kooku yaakaar naa ñu diwul xanaa te te nuñ gisuñu fenn lii moom si si Sibalem Diop ko wax si si si waaye si si si Sibalem néewut si sëñ tubaa nee na ku jëfandikoo bii boole ca bee léegi gi gën a man wax ji wax mag ñi ni ñu yore woon mooy lu mu wax ngay wax yow doo yokk doo wàññi lu mu waxut waxu ko sëñ tubaa moom waxuñu ne jëlal maaxuus xaatim xafiif nangam wérde wi képp lala la jëlloo wérde wi nag mooy al wirdul xaatim ba keneen di wax leneen sama